Pape Diouf ku ko xamul it dégg nga ko mu nekk ab musicien mbalax bu mag juddoo ca pikin ci ab famille bu modeste ci boobule bërëb la dooree jàng lekkoolam am maternelle ba cm mu am ay jaar-jaar comme ñépp bés jot ay mbébétum sotti loolee nekk bëgg mu bëggee woon ki nga xamante ne nii moo di Youssou Ndour ba koy woowee sax. idole muy commencé nag di jaar ci tànk ki nga xamante ne nii moo di idolam boobee doomu Pikine bi ci atum 2002 la formé orchestre am ambition wam boobu nag marqué ab nouvelle ère artiste bi sax am ci ab raaya ci atum 2004 ndax single boobu mu dippee partira nga xamante ne ni mook waa Prince Art amal nañ liggéey bu rafet boobu jamono jooju nag la kii di Pape Diouf tàmbali fës ci réseau sociaux yi yemul foofu ay yeneen distinction topp ci lu ci mel ni tamani door bu Bamako mu nekkoon ab compétition bu dajale doomu Afrique yu bëri ci boobule raaye nag la ko président de la république bu Mali ci boobule époque recevoir ñeenti at topp ci Pape Diouf waat mën-mënam gannaaw ba mu génneewaat ab album de confirmation dippee ko jot na loolee tax ba mu gën a fësal ay empreintam ci musique sénégalaise mu nekk lu yëngal àdduna bi lu ci mel ni jaral nga ma challenger yaay banlieue muy wëyal yoonam di def ay tournée nationale ak it internationale teewul nag mu nekk nit ku modeste ci atum 2012 doomu yaay caala bi xam bëgg bi ko sénégalais yi bëgg ak bàyyi xel bi ñu koy bàyyi xel moo tax muy faral di ségg ay waxam ngir teg ci yoon musicien yi door wala sax tax ñi koy roy mu am ab slogan bu particulier une chanson pleine de conseils aussi profonds ne fut ni composée ni écrite au hasard ci atum 2011 ñu koy woowee le roi du mbalax ndax albom bi mu dippee kaskas tombeek jamono jooju ki nga xamante ne ni moo di Youssou Ndour génn arène musique sénégalaise Pape Diouf tax fans yi ak ñiy déglu mbalax jooyuñu lu yàgg ki nga xamante ne ni moo di Youssou Ndour ndax mën-mënam Pape Diouf mu jaar ci boîte bu bëri fii ci Sénégal dem ba benn jamono mu xam ne mënatu la satisfaire fansa bi yëpp ci la songe li nga xamante ne ni moo di Grand Théâtre ci atum 2013 mu feesoon dell tax ba ñenn ñi sax am fit ay at ci kanam mu génnewaat beneen album dippee ko rakkaaju mu mel ni rakkaaju boobu la fan si doon xaar mu am ci ab succès bu légendaire mu delloo mbuum sa mbooy mbooy ba ba am ci ay trophée mu def ay tournée mondiale feesal Zénith dog de Pullman mu nekk royukaay ci ndawu artiste yi boobule album génn lu ëpp ñetti at jamono ji teewul muy buzz fépp ci àdduna bi leader génération consciente bi nag tax amatul jot ndax génn yu bari yu muy faral di def di fàttali tamit albumu rakkaaju bi participé na ci ab festival américain ñu def ko ab vente aux enchères ci lu tollu 30 millions le pape de la musique sénégalaise ñu ko koy faral di wax di woyal carrière te amul benn coow. ñu nommé ko ambassadeur de lutte contre le tabac mu war a taxaw ngir sensibiliser askan bi ci jéey yu cigarette di def mu war a dem Bercy ci atum 2018 kii di Pape Diouf fas yéene nag génnee beneen album ngir bégalaat fansam yi kii mooy Pape Diouf. <laughs> portrait Pape Diouf la ñu gis noonu Pape Diouf euh, artiste euh, musicien di ko dalal di ko nuyu di ko ziar. salaamaaleykum. Euh, waaleykum salaam Tunkara man aussi maa ngi lay nuyu di la ziar. Pape ku la solal. ki ma solal nag moom vraiment mi ngi tudd Tafa Fall Baara Couture. Hmm, fu mu ne. Euh, mi ngi nekk West Foire. macha allah Tafa Tafa Fall Barakoutir xale bu yaru. bëgg na préparé benn pour man. Eh, waaw ah li nga bëgg yomb na de. ah laay laay non dina ko def dina ko def. parce que xam na ne dina ko def. parce que d'ailleurs bii mu ma ñawal sax da ko créé uniquement pour man. pour lancer ko si korité gi. donc sama rakk la sama fans la. man. Euh, yow xam nañ ku la tolal tamit na la tolal xam nga parcelle mais ñu jàpp. waaw la tolal tungar bu ñu tolal quoi. El Hadj Sarr les moo ñëw li. ma ma eh, mais dooma laaj. Eh, muy Pape Diouf Pape Diouf eh, génération consciente waaye Pape Diouf tamit ambassadeur la. Pape Diouf dañu lay woowee excellence parce que ambassadeur moom moom moom excellence. <laughs> son excellence Pape Diouf. yow ko bëgg mu yoroon noonu. Eh, Pape Diouf ambassadeur la de la lutte anti tabac. Mhm. maanaam yow doo tox. non du ma tox du ma naan. musoo tox. non musuma tox. en tant que tox. non en tant que booy Grand Dakar booy Pikine. waaw mais. musoo ko laal parce que bëgguma tox. Ah euh, loolu dafa am solo loolu dafa am solo parce que euh, suñu borom bu la defee nga nga siiw. Mm. Euh, loolu da nga am warugal. jariñe di jariñaate mhm. jariñ surtout ndaw ñi parce que am na ñu bëri ñoo xam ne ñoom dañ lay xool bëgg nañ la safoo la bu ñu la gisee ngay def dara rek wala bu ñu la gisee ngay tere dara dañuy jàpp ne que loolu euh, lu am solo la mhm. euh, tey ngay xeex cigarette maanaam man dama la si delloo njukkal xam nga lu tax parce que xeex cigarette moom mooy xeex dund mhm. xeex contre de parce que cigarette dafay raye. Mm-hmm. c'est vrai xeex ñàkk a wér. cigarette dafay indi cancer. cigarette dafay indi maanaam lu tolloog juróomi million si doomu aadama at mu ne cigarette da koy faat. tey ñiy yëngu si cancer ñëpp dañu ne ñaar yi cigarette ak sàngara suñ ko bàyyi woon soo moytuwul genn wàllu cancer yëpp dootul am. kon Pape loolu lu man fa laa njëkk a tàmbalee delloo la si njukkal. waaw euh, jërëjëf mon frère Tunkara euh, mon frère de valeur sax laa lay woowee parce que ñi ngi doog a toog. mais nag ku la naw la ku la respecté la parce que dama lay suivre léeg-léeg su ma amee jot rek damay dugg ci internet bi xool émission yi ngay def donc di la jaajëfal di nuyu suma tonton Aj Bekay mhm. di ko ziare ci koor gi ak sama sama sama yumpaañ waaw <laughs> euh, di nuyu suma doom Corombaar Ndiaye di nuyu suma rak Pape Sidi di nuyu aussi mon frère Pape imam maa ngi lay ziar soxna si. Fatou Fatou Fatou bëgg ceeb waxal suma frère de banlieue Demba. di nuy aussi suma papa élage Hadj Ndiaye. ak euh, sunu tata tata tey lan lañuy ñuy commencé yëpp Hadj euh, Bekaay. waaw man dama koy encourage parce que lii muy yëngu di woy bu nu la ci demee ba xam la ci c'est parce que da ngaa liggéey. boo liggéeyul woon doo ko am. ma la ciy encouragé ci li ngay def. parce que nag mbalax bi dafa saf xam nga ay roi Youssou roi Youssou Ndour daf fi ne. donc boo deful lu leer moom. waaw sa biti nga jëm. moo tax damay gis souvent may gis day évoluer nii lay def pap nii lay def di évoluer ci li ngay def et puis ànd ceeg sérieux am ci discipline bëgg ko di ko def fonk ko aussi. man ci loolu de gis et puis lii nga def aussi <laughs> boo nekkee ambassadeur ah di xeex euh, cigarette vraiment yaa ngi xeex luy reye. ñuy mm. luy loo xamante ni bu fi jóge woon ni ko Tunkar léegi feebar wàññeeku. Mhm. du rek cancer ak euh, li mu wax mais yu feebar yu bëri. Mhm. tux daf koy joxe. Mhm. te boo jógee duggaat ci bo loolu yaa ngi dugg ci leneen te noonu la gis nga dans la vie. nit du yem benn étape. dans la vie day bouger. dëgg du da da ngay ñëw rek woykat laa rek nga yem ci woy rek croiser les baraa fu ne nii fu woy am nga dem bu woy amul nga tëdd déedéet da ngay def leneen pour ñeneen xam la. te li ngay def vraiment man j'aime loolu kan moo la nommé ambassadeur boobu sax leeral ko encore. waaw euh, c'est le ministère de la santé. Mhm. en général. Euh, ndax mooy euh, kër gu mag gi. Mhm. waaye nag dafa am benn pàcc. boo xamante ni dañu def benn section boo xamante ni ci ministère de la santé la jóge euh, te docteur Oumar Ba jiite ko. Mhm. donc ñoom ñoo ñëw envers man. ma leen di remercier aussi bu baax. docteur delloo ko njukkal vraiment moom ku. farlu la Omar Ba jàmbaar dëgg la si wér gu yaram bon. Mm. les dames d'abord Fatou Niang. après man daam la <laughs> J'adore les femmes je peux pas. Fatou kat day ree. <laughs> Euh, man li ma buggoon euh, wax rek. mooy ñu ngi lay delloo njukkal déjà ci titre bi nga xam ne am nga ko. Euh, mm. c'est un grand titre te tamit xam naa ne mun nga ci liggéey lu am solo. Mm. Euh, ci ci sa métier bi ngay def. Mm. Euh, wante dama bëggoon lancer benn appel rek état du Sénégal parce que dañu fi ne woon dafa am loi boo xam ne dañ ko tegoon ngir tere fi tux si mbedd mi. Ah pas si mbedd mi mais si milieu mais ba tey dañu gis ne loolu mettre ñu ko totalement en vigueur mm-hmm. tey jii bëggoon nañu ñu geesuwaat loolu bu baax a baax a baax aussi ne woon nañu tamit dañuy jël paquet yi def si ay Euh, tête yoo xamante ne hmm. image koo xam ne daf doon tox ba am ci feebar boobu ñu war koo jël def ko si paquet bi pour que ki nga xam ne moom mooy dem di jëndi paquet bu ko gisee mu découragé delloo paquet bi hmm. mu jaaree fa bàyyi bàyyi tox te loolu tamit j'espère que ministère mu ngi siy def ay jéego yu am solo hmm. yow tamit j'espère que yaa ngi liggéey si mbirum li ma la njëkk a wax léegi nii mooy tox ci milieu public yi. Mhm. ñu jëm ko fee euh, fexe ba loolu nekk en vigueur. parce que gis nañu ne mi ngi woy ba tey fii ci. corombaar doo sax tux yàmbaay. xaaral mu <laughs> bon je pense que lu am solo la wax parce que d'ailleurs euh, jour bi ñu may nominé raaya bi euh, docteur Oumar Ba mi ngi doon def benn point de presse di relater feeba boobu nga wax. que ni actuellement dinañu def voté benn loi boo xamante ni d'ailleurs taxi yi dina xaw a metti tuuti pour duggin bi ni si fi cigarette bi du duggee mu wàññeeku. beneen bi ci topp aussi euh, dina ñu fexe ba maanaam paquet cigarette bi ñu wane ci ay image yi nga xamante ni cigarette noonu lay def si xol. xolu nit tàmbali na ah. waaw mais je pense que dinañ ko door ñu gën a gaaw Europe la tàmbali Europe si si si donc dinañ ko démarrer ñoom. mais Tunkara sànq aussi yaa ngi wax wax bu am solo parce que xam nga nee nañ comme que réew ndaw. avenir u réew ay ndaw lañu ay xale te xale danga war a am kattan xale da nga war a am doole xale aussi da nga war a am hygiène de vie. xel xale aussi danga war a am conscience tranquille xel mu sell. xel mu sell voilà te cigarette gis nañ ni que tey euh, dee dee bëri na te ci jeunes yi la ëppee. Mhm. da nga jékki-jékki dégg ñu ne benn jeune bu am moins de 30 ans faatu na. Mhm. mais boo xoolee sax. ci biir doo xam moom du xam sax lu ko rey parce que telement xale yi jekke da nga gis koo xam ne dafa war a jekk-jekk à un moment nga dem seeti sa docteur nga def bilan d'abord hmm. mais bul continuer di tux rek hmm. te xamoo li la li la dal hmm. et que euh, nee nañu cigarette di ko tux bu dee góor la day wàññi sa ngóora su dee jigéen la day yàq sa njurukaay cigarette baaxul te jeunesse bi li ñuy tux cigarette bari na imagine tey nga nekk ndaw ci kër di sa taw papa nekk fa koo xam ne yow la ñu yaakaar nga am soxna am soit benn doom wala ñaari doom da nga war a da nga war a forger famille nga war a dundal say waajur dundal say frère soit yow rek nga tane fa ci kër gi mais bu fekkee ne yaa ngi topp sa nafsu di tux cigarette mu dem ba nekk habitude ci yow sa organisme miin ko bu demee ba gañale te doo ci rendre compte ah drogue la de drogue la donc loolu aussi euh, waaw doy na ndax sas bi dina yomb ci yow parce que quand même milieu bi ngay évoluer mhm. qu'on le veuille ou pas euh, Tunkara showbiz Euh, bu ñuy wax lu jëm ci wàllu taux. Mhm. cigarette ak sàngara fa la ëpp. Mhm. Mhm. donc est-ce que dina yomb ci yow quand même euh, nga sensibiliser non seulement askan wi en général mais say mbokk artiste également euh, je pense que jot na bu ñu xoolee ku mel ni yow. ñu bëgg a utiliser sa image pour xeex cigarette est-ce que pare nga pour ànd ci ak ñoom sas bi également est-ce que dina yomb parce que nag bari na tux ak naan ci seen biir. mais avec plaisir parce que d'ailleurs loolu aussi opportunité la ci man. parce que tey fans bi nga xam ne mi may béggee faama lu ma sol mu sol ko nu may waxee noonu lay waxee ni may ni may doxee noonu lay doxee. Hmm, loolu responsabilité la de. waaw mais c'est parce que sensibilisation la communication la waaye nag nit aussi am na xelam parce que li nga xam ne day reye nga taxaw ne gars yi lii ngeen di def kat neex na lool waaye nag baaxul ku ci bëgg fan wu gudd moytu ko ndax lii ak lii lay causé man personnellement xaw ma ne woon cigarette day wàññi kàttan. xaw ma ne woon ne cigarette boo dee jigéen day wàññi sa day yàq sa sa sa donc bi ma demee aussi ci forum bi ñu doon def euh, à Rufisque techniciens yi invité nañ ma won ma ay images yoo xam ne waa joo xam ne 47 ans la am vraiment ni cigarette def xolam bi ma ko gisee yéem na ma te musuma am chance gis loolu donc euh, mais mais nag li Coro wax parce que euh, est-ce que xam nga si artistes yu mag yi par exemple. ñu mel ni ñoom Youssou Ndour wala ñoom Ismaël Lo wala ñoom Thione Seck wala ñooñu est-ce que am na ñu si tox. waaw mais euh, en fait du ma ci mën a communiqué parce que je parle avec le Sénégal je parle avec l'Afrique. ah mais wax ñu ne par exemple Thione Seck day tox wala. Youssou Ndour waaw mais waaw mais dama ko laaj. mais mais du am solo Tunkara je m'excuse mais loolu du am solo li am solo mooy il faut il faut communiquer. mais mais tey bu fekkoon par exemple ku mel ni euh, ponkal bu mel ni Ismaël wala Youssou Ndour par exemple day tox yow nga fexe ba kooku bàyyi ko ñoolu ñu communiquer si loolu dina tax ba dina am ay ñenn ñu mu suuxat. <laughs> mais li nga am man moom ma ko mais je pense que je pense que ni. si ñooñu xamoo kenn ku si tox. non honnêtement mais sensibilisation la boo xam ne euh, c'est le Sénégal. donc loolu moom ñoom et que communication boobu euh, ah. pare naa ci ànd ceeg ministère de la santé vraiment dem fu ma mën a dem si Sénégal boo si mënee xëcc tamit yeneen artistes yu mag yi ñoom Youssou Ndour ñoom Ismaïla Lo ñoom Viviane ñoom ñëpp Tounkara Pape Diouf du la wax ne Youssou Ndour day wala Ismaïla Lo day tox yow xaaj bakaay si ñoom xam nga ko si tox xam naa ko ci kay kan kan ma ko wax man <laughs> xam naa ko si tox man bokk maa bokk maa moom bu ko xamul man xam naa ko mais dama ko dul wax. <coughs> man ah damay laaj. ah d' accord dafa naa da nga affirmé man. en fait en fait Pape d' abord xam naa ci bi nga xamante ni da nga koy da nga ko da nga fi mu ne nii muy nekk responsabilité bu mag. te ñu jàpp ne rek am nga ci prise de conscience bu réel. Mhm. ci li nga xamante ni chargé nañ la ko te bés bu ñu la bés boo demee tamit ba ba sa mandat di jeex foog ñu évaluer la tamit. Mhm. ndax loolu lu am solo la mais tey jii fi nga bokk xëy na tey jii d' abord bu ñu la joxee euh, kii bi. titre bi comprendre naa man li tax nga tuddee sa kii génération consciente et que tey fi nga bokk tey muy la grande banlieue bu ñu ko mënee tuddee noonu la grande banlieue Pikine diggante Pikine ak Guédiawaye ak yooyu euh, tey ndax bokk nga ci chanteur yooyu nga xamante ni euh, suñu borom dafa dogal ñu am benn dayo bi rek wala daal di daw génn foofu ndax foofu ngay foofu ngay xëyee ba tey ça c'est un parce que pour nga nekk pour nga xam problème yi ñuy jànkonteel foofu foog nga nekk fa xam naa boobu mooy benn bi ñaareel bi mooy dama lay soumettre ci benn exercice mooy tey boo ma doon wax Pape Diouf en chiffre lan nga may wax tey jii ñaata emploi nga créé tey jii ñaata euh, euh, sa chiffre d'affaires lan la tey jii sa valeur ajoutée tamit ci art bi nga xamante ni yaa ngi koy. Pikine nga yeewoo bés bu ne. Mm-hmm. non non non. foo dëkk. maa ngi dëkk Cité Biagui. Cité Biagui Yoff la. Mm-hmm. bien sûr. ah da nga gàddaay Pikine. non gàddaayuma. ok est-ce que tey parce que li tax ma laaj ko mooy tey ji bu fekkee ne ku ku am dara rek ci banlieue bi daw génn. problème dafa am mais d'accord xam nga nit mën na sori lool jege lool. Mm. tey jii donte dëkkatoo fa ndax ñoo ngi sentir sa présence réelle au quotidien te tey lii ñu la jox tey jàpp naa ne aussi euh, liggéey bu gën a am solo mën nga ko defee foofu ñoom ñu porté ko surtout ci ndaw yi nga xam lu ci bëri mën nañ di jëfandikoo yooyu nga xam dañ koy tere. waaw euh, jërëjëf sa question bi am na importance trop euh, maa ngi dëkk Pikine ginnaaw raay mm. mais dëkkatuma fa. Mm. ndax sama kër papa laa par rapport ak sama succès bi mu demee di gën di yokk macha allah sama fan yi di ma set si ñu nekk ay mag xajatuma foofu parce que dootuñu am jot pour mën a teel a nga toxu biir Pikine Pape Diouf nag benn benn benn ah. ñaareel bi ci topp aussi mooy samay activité dafa gën a je dafa gën a jege ville bi Ndakaaru te comme que li may liggéey ci lay tedd di ci teral ku mu mën a doon je préfère ma jege si fi may liggéeyee mooy mooy gën a yomb ci man waaye li am solo ba am solo mooy euh, nit dina la sori fekk jege na la et je pense que ni euh, taxawaay bi nga xamante ni un responsable war na ko taxaw ci dëkkam loolu rek moo am solo donc euh, peut-être boo may suivre ci réseau sociaux yi wala ngay dugg suma page sama page Facebook li may def lépp ci banlieue di nga ci teg sa bët Pape ji Djibi lu mu wax dafa am solo. Mhm. mooy dëkk. ña fay euh, gën a ràññeeku. Mhm. suñ koy gàddaay. day rey dëkk ba. dëgg la. ak bu mënti nekk yow tey li nga wax nii man ànduma si de. non mais dafa yeewoowul. may wax mooy moom ne tey waaye dëkk. HBK bàyyi ko bàyyi ko mu HBK mënoon na toxu biir Pikine. Mhm. benn tey Pikine soreetul Ndakaaru de. dëgg la péage bii ngay yéeg. wàcc fii du dem Dakar foo bëgg donc man ànduma si tey ñi am succès ñëpp euh, dëkk pikin gàddaaye Pikine dem tuxu feneen comme ñi dëkk piir ñoom euh, Ndoye Bane loolu laa ne waru leen gàddaaye Pire bàyyi Pire ñëw dëkk fii Ndakaaru dëkk ba day dee waa mais euh, Tunkara nit ku nekk ak sa point de vue non d'accord na tey say waajur mën nañu dëkk fenn ci quartier nga am kër beneen quartier waaw foo xam ne fa nga am terrain wala fa nga dëkk léegi. affaire symbole la pas dire que mais le symbole c' est au c' est, dans le cœur. déedéet le symbole non, c' est attends, pratique aussi non, mais ak euh, sa point de vue. mais nit ku nekk tey tey man ak tey man ak yow mën nañu bañ a bokk gis-gis te ni ngay gisee dafay dëggu man aussi ni may gisee dafay dëggu <coughs> mais xam nga lu am solo mooy nga dëkk ci dëkk te nga xam ne loo doon ñoom la te tekki woo fa dara moo tax sànq manaan jibi boo amee chance dugg sama page Facebook ni ma mel ci sama dëkk di ci teg sa bët bërki dee moo njaay la AS Pikine jóge suma kër biyaagi biyaagi cité biyaagi bien sûr dañuy jóge Pikine ñëw ba si biyaagi ziar si la bien sûr ah. bien beneen bi ci topp mooy li am solo ba am solo mooy maa ngi dund ak sama waa dëkk ku ma soxla ma présent ci côté bu nekk financièrement humainement donc te loolu moo am solo et puis entourage am genn wàll gi ak orchestre bi chiffre aussi euh, ñu ngi sant yàlla bu baax ñaar emploi nga créé presque j'ai plus de cinquante personnes derrière moi très bien ñu salariés sont pas des salariés mais on leur paye chaque week-end si on a des contrats en moyenne ñaata ngeen ngay ne que tamit ben attends kooku moom du ma ko mën a naa la sama salaire loolu dara ñaata ngay fayeku. man a ma salaire mais am nga ah, structure organisée. <laughs> bien suma SA. <laughs> ok hmm. donc euh, parce que non Pape Pape Diouf. Mhm. Euh, bi tamit bon loolu xam naa kii la pour ñu dugg si biir musique bi. musique bi dafa am njaaxum bu mag bu si nekk. mooy affaire salaire yi. Mhm. par rapport aux musiciens. Mhm. aux instrumentistes. léeg-léeg ñoom lu néew la ñuy am par week-end boo leen tëggee sànni leen benn cinquante mille benn vingt cinq mille Pape Diouf loolu war ngeen ko lijjanti. waaw mais euh, côté boobu aussi c'est un peu mm-hmm. parce que li tax c'est un peu compliqué mooy xam nga liggéey te du ci musique rek liggéey boo gis moom la sama frère. de la banlieue doon wax sànq. Mm-hmm. Demba Demba liggéey boo gis am na côté boo xam ne dafay metti am na ko côté boo xam ne dina neex mais il faut aussi ñu jàppale ñu. kan jàppale leen nous les musiciens. kan jàppale leen Mbagnick Ndiaye. état laa njëkkee. <laughs> Pape Diouf yow yaa waxu état. waaw mais si attends je viens. parce que je suis un sénégalais je suis un citoyen sénégalais. Mm-hmm. état laay njëkkee. Mm-hmm. benn bi ci topp mooy sponsor yi. parce que tey mënuma concevoir. Mm-hmm. un Pape am événement. national dis un sénégalais dooree fii ñafee fii li ma tekk ma tekkee ko fii def album rakkaaju placé wu première iTunes world music musique mondiale mhm. te aw ma label aw ma aw ma maison de disque je veux dire kon je pense que ni tey mënuma d'accord loolu su ma amee événement dem fu mel ni ci benn euh, société de de sponsoring bu mag pour ñu sponsoriser ma damay daw a daw ba dee ñu jël tey benn artiste international boo xam ne jóge na Europe war a ñëw tey jouer ci Sénégal pour benn date bu baax dinañ ko jox plus de cent millions wala cinquante millions sponsorisé ko. si lañ gën gis seen bopp rek non. je ne suis pas d'accord mais ñoom noonu la je ne suis pas d'accord tu sais problème non am fu may ñëw. fi nga xam nga musique Sénégal problème bi li nga wax léegi ci musiciens yi. Mm. il faut ñu am problème xam nga mm. pourquoi. Mm. organisé wul bu njëkk ba orchestre la woon. ñun ñëpp ñoo bokk orchestre. ñoo ko bokk. mais tay Pape Diouf la. léegi ay leader ñoo am. leader léegi Ismaïla loo laa ci gisoon mu nekk homme orchestre. bi mu daan wax yor harmonicam yor guitare mais tout le reste ci orchestre la ñu nekkoon. gere ñu am gestionnaire mu gere seen orchestre bu samedi bu jotee bu nuy wàcc ku nekk ñii ñu jox leen dix mille. ñii 4000 ñii 20000 ñu dem ñibbi. noonu moo doon am léegi day am leader. leader bi il faut mu organiser wu te musique bi doxul qu'on la vérité. c'est léegi boo génnee benn morceau. mi ngi ci site bi mi ngi ci téléphone yi mi ngi fépp. kenn jënd ko kenn du ko jënd. non mais mais léegi kii bu bëggee chaque mois. mu bëgg bëgg a fay. musicien mais du dem. non non mais musicien yi dee rek. mais dama lay dama lay dama lay bon. Euh, xam naa ni borom xam-xam nga macha allah. amiin amiin. non je te respecte parce que je te suis. Mm-hmm. mais aussi domaine bi may wax ak yow. Mm-hmm. xam naa ni sama xam-xam bu gàtt man maa la ko gën a maîtriser. Mm-hmm. tu vois ci côté sponsoring bi laay dikkee. parce que yaa ngi ne peut-être ñooñu. bu ñu ñëwee ñooñu gën a mobiliser. non dama ni ñooñu. privé yi. société privée yi si ñooñu la ñu gën a gis seen bopp que si yéen. non mais sa je ne suis pas d'accord parce que tey boo xoolee marchandise bi nga yore di ko jaay sa sa base mooy sa balaa ngay wàlliyaan na fekk sa dëkk tëgg et que ñooñu xam nga musique léegi problème de système la problème de marketing la problème de communication la di nga gis koo xam ne xamul dara hmm. amul talent xamul dara mais peut-être mën nañ teg benn système de marketing boo xam ne mën nañ fexe mobiliser ko. comme mais ñooñu. non exemple laa lay wax lambda exemple laa lay wax. Ah, sama xam-xam mais exemple boobu amul. mais non si. jox exemple. mais mënu ma citer non. non je non non je t'explique. ah loolu amul Pape Diouf nga jël non am na je suis désolé. Ah, nga jël amul dara nga jël mais Pape Diouf li nga wax amul waaw mais du ma ah, la ko wax du ma la ko wax. ah exemple ku xamul dara Tunkara exemple ku xamul dara. ñëw Sénégal mm. organiser monument de la Renaissance. ginnaaw bu mu bëggee stade amul. moom sponsor yi dar ko. mais Wizkid la tudd. kan Wizkid. waaw xamoo ko. xaw ma ko. waaw parce que mais ma ma yeggale. non non yow xoolal non wuy ma. xamul dara. Eh. xamul dara moom biskit moom la nekk naa mais. xoolal nga xamoo dara xam nga xamoo dara. Eh, papa yow nan nga koy nattee. tunkara xamul dara. tunkara tunkara bi ñu demee ci concert bi déjà il a du problème. à nous jouer un morceau en live. Tunkara sa voix ne sortait pas mu leer na ni kii artistes yooyu nga xam ne bu ñu woyee ba pare dañ leen di yóbbu hôpital je m'explique. pour ñu wax artistes yoo xamante ne nii il faut critique musicale. mais critique musicale bi ma lay defal mi mu ngi nii. non yow doo critique musicale. man may expert. Pape Diouf <laughs> teg tu vois donc. Euh, problème de système la rek. tey jii su ma neexee jël la la yaa ngi dégg def ay relation mobiliser Tunkara. teg benn système de marketing. c'est vrai agresser la population. tympaniser leen parce que business la dañu wax showbiz. tu vois par force li ma bëgg dama koy am. mais de grâce de grâce sunu société yu mag yi fi nekk nan nu gëm ñun am na talent bu nekk ci ñun nan nu gëm jàppale ñu di ñu sponsoriser pour ñu mën a mobiliser. vraiment mën ci génn. aywa loolu Tounkara par rapport ak li Pape Diouf di wax man j'en ai fait une euh, un combat boo xam ne ça m'a coûté beaucoup. si sponsor yoo xam ne dama doon am habitude di liggéey ak ñoom dañu gis vidéo bu ma def si internet bi rek ñu ne Pape Sidi c'est lui qui nous critique moom mooy wan nit ñi yoon bi parce que marketingment parlant hmm. bu fekkee ne benn artiste bu tudd Fatou Niang moom moo dëkk France ñëw fi opérateur de téléphone yi darandoo ko ñii di ko proposer million ñi ñii 150 millions pour mun ko sponsoriser te le gars il parvient à faire un spectacle avec personnes hmm. Pape Diouf mun def grand ni dof fait mille places au stade ainsi de suite ainsi de suite état bu Sénégal dafa war a wax société yi nekk fii privé ou public dañu am obligation jàppale ndaw yooyu mais da ngay gis sponsoring da ngay gis koo xam ne danaa la lijjanti naa la sponsoring 3 millions waaye booy pour nga jot ci 3 millions il faut ma jël sama lekku bandi nga jël sa lekku bandi c'est-à-dire événement bi 3 millions la société bi génne yow da ngay jël 1 million 500 booy yow mi moom événement bi def lépp man mi deful dara. damay jël 1 million 500 ndax man maa koy signé. kan moo def loolu société yi nekk ci place bi loolu la def. comme comme ban société. société yëpp. y' photo exemple sunk Tunkara du ma la jox exemple ñu toroxal ma. dañuy dem fii nii si si télé la euh, moom dafa léegi li am solo pour c'est vrai que c'est un tout mais tey jii ñu jox la li ñu la jox ni dénk la ko pour nga xeex cigarette ndax tey problème de santé publique la tey ndax pare nañ pour acte bu fort booy posé daal di wax ne dinaa tëgg soirée boo xamante ni sans hmm, tabac lay doon. wala woy mor benn waaw mm. am nañu suñu planning am nañu suñu planning bi ci gën a yomb ci man te gën a baax mooy ma woy morceau boo xam ne. ku ko dégg dina la neex. boobu amagul. di nga ko fecc dinañ ko def. incha allah di ko tuux rek. <laughs> waaw mais xam nga euh, day des rek. parce que aussi liggéey bu rëy la. <laughs> mënuñu ko mënuñu ko fi jëlee. mais mission rek la ñu am. loolu am la tey mi ngi mel ni njiitu réew ñu teg la ci réew. munoo ñëw régler tous les problèmes. loolu dëgg la man Tounkara j'ai pas posé par rapport à se mm. euh, man je fais partie de ces de ces Sénégalais qui t'adorent tu le sais bien euh, man dama gis nga dem Amérique. Mm. def ay exploits yu extraordinaire lii ambassadeur la ñu nommé mënoon nañ ko nommé Coro wala ñu nommé ko Demba euh, ci li nga nekk ci génération consciente dëkk Pikine nekk mm. leader te doo tux doo naan moo tax ñu def la ambassadeur ah donc tu le mérites mais beneen bi mooy danga dem Amérique gagné fa ay trophée jël benn CD jaay ko plus de combien de million 30 ah? millions ah 30 de francs CFA benn CD rakkaaju. Mm. Euh, Pape Diouf euh, nga nga nga dem récemment Doc Eiffel. Mm-hmm. nga def guichet fermé. Mm-hmm. annoncé fa ne le l' année prochaine sa anniversaire bi ngay defee Paris. Mm-hmm. da nga koy yóbbu Bercy. mais Pape Diouf ah su ma juum la. Ah? ma ne incha loolu nga annoncé. mais sur ça aurait pas été les réseaux sociaux. Mm. sa ay page wala quelques internautes wala quelques personnes de la presse en ligne. Mm. yu fi nekkoon ñoo ko def. ñun on n'allait pas être au courant de ça. Mm. Pape Diouf d'où ce manque de communication yow yaa bañ a jox information bi nit ñi wala nit ñi ñoo am problème mu jot ci sa ay bagages. la question que j'avais posée moom mooy Pape Diouf dañ kon nëbb jant bi est-ce que tu nous raison wala c'est pas le cas. waaw euh, je suis libre comme de l'air kenn nëbbu ma jant bi. Euh, je fais pas aussi euh, de la communication agressive. sama liggéey dama koy montrer naturellement naturellement. Euh, c'est vrai dem na amerique euh, benn festival boo xamante ni. fan la woon ba état. Schenectady yi donc ñu jox ma benn jënd suma album. Mhm. à 30 millions benn multimilliardaire moo ko fa jënd. et que ñooñu balaa ñuy jënd sa album dañ lay seetaan en en live ba pare comme li mu doon wax ni mm-hmm. bu ñu la seetaanee en live. nga xam na xam déglu li ngay def mu neex leen. donc ñu jënd ko mais kooku li tax mu jënd ko aussi. Mm-hmm. Euh, pour humanitaire la pour social. 60 000 dollars. donc waaw 60 mm-hmm. 000 dollars. beneen bi ci topp xaalis bi après loo ko def. non mais euh, <laughs> ñu ñu yóbbu woon. lañ ko doon liggéeyal lool donc am na ci yeneen pàcc yoo xam ne dem na fa. musiciens yi jot nañ si. Euh, non pas pour les musiciens. <laughs> donc euh, parce que ñun fa doon ñëw. soxlawuñu loolu am na ñu ñu ko gënoon soxla. Ah. voilà donc xam naa loolu aussi dinañ ci gën a mën a yaatal. gën ko gën la fu mu jaar nag. non non non non c'est pas pour nous. xaalis humanitaire la woon. <laughs> parce que léeg-léeg dafa am yenn dëkk yoo xam ne dañ naan soit am na dëkk boo xam ne. soxla nañu ndimbal soit am na fa ñoo xamante ni dañu feebar wala ñoo xamante ni si ay handicapé lañu. d'accord donc kan moo mën a participer pour soxla nañu tant d'argent pour yóbbu ko ci dëkk boobu. donc man nekk ci festival boobu man ma fay woy man maa njëkk a volontaire ne damay jaay samay CD. dama ko andi pour jaay ko yóbbu ko sama kër. Pape Diouf mais Pape Diouf baal ma. information bi li ma la laaj noonu mooy manière la manière la plus polie que j'ai trouvé pour non génn ma principal. kan lan moo tax <laughs> tollé bi am ci kii internet bi. mais c'est parce que yow yaa ko les gens parlent euh, xam nga Sénégal moom mooy. dëkk boo dëkk wax na rek imam dëkk commentaire la. <laughs> imam waaw euh, léegi professeur. imam ce que déggu na rakkaaju sax. Euh, Pape man wax dëgg yàlla. Baye Babou imam xam na ko. ne nekk ci milieu musique naa ko bu baax. xam nga Baye Babou. xam naa ko bu baax. ok d'accord loolu laa bëggoon euh, léegi euh, Pape. Mm. man euh, li nga wax fii ne doo tux doo doo naan. Mm-hmm. loolu lu am solo la pour man. Mm-hmm. parce que yombul ci seen millier bi. Mm-hmm. waaye xam nga man damay wax toujours na yéen yéen yal na leen yàlla xettali. amiin jàppale leen parce que seen sas dafa rëy. dëgg la. ñaare dañ leen di liggéeyloo liggéey yoo xam ne yombul. parce que daanaka euh, tuxum cigarette ak naan sàngara dafa ànd ak musique dafa lëkkaloo. pour nga teqale leen du yomb. dëgg la léegi nit koo xam ne day liggéey ci musique ñaari boîte yi ngay tëggee jigéen ja fay ñëw góor ga fay ñëw mu ngay tux wala mu ngay am lu muy mos ba pare ñu bëgg la defaat ambassadeur pour nga xeex cigarette liggéey boobu du yomb. waaye nag yàlla moom mooy defal nit tawfiq maanaam ku mu jàppale rek di nga am ndam. imaam ñoom li ñuy def est-ce que seytaane laxasuusi waa léegi moo tax ma ne àddina bi c'est-à-dire que man dama dul comprendre xam nga ñun li ñu jàngal ci diine dañuy wax ne ñett moom du ñu tàqalikoo fu bu kenn demee ñaar ñi dinañ ko fekk si muy sàngara musique njaalo ñett ñooñu moom du ñu tàqalikoo moo tax euh, yombul yombul liggéey la boo xam ne ndimbalu yàlla rek la ñuy ñaan yàlla xettali leen yàlla gindi leen ñoom seen seen liggéey bi daal seytaane def si daf non non mais kooku c'est clair parce que fooy tëgg fooy tëgg fu nekk professeur foo xam ne Euh, tey bu ne bu pap ne woon damay tëgg mais bu fa benn góor ñëw jigéen ñi kese laay tëggal ah, wala jigéen ñi kese laay tëggal bu fa benn góor ñëw hmm. est-ce que dina nekk jigéen jaxasoo ñu dajale ci jàpp dëgg dëgg boîte de nuit moom barabu seytaane la moom non amul werante kooku ñoom xam nañ ko mais il faut ñu dajaloo fa jàpp si booy loolu xam nañ ko eh euh, pap si calme-toi loolu xam nañ ko pap loo wax <laughs> imam lu wax waaw balaa may tontu imam euh, damay tontu pap Sidi dang dang ñu doog sànq dafa laaj laaj question bu am am solo que dama ko bëgg a xamal rek nii Euh, léegi alhamdulilah am na fu ma toll ci musique sénégalaise. Mm. Euh, je suis libre comme de l'air. Mm. donc euh, kenn hypothèque wul suma carrière. Prince Art tënku la. non non non non non non non. mais da nga signé ñoom contrat. lu man ak ñoom suñu relation dépasse du sax contrat. c'est un contrat moral non on a rien ah, d'accord donc vraiment ma ak ñoom c'est une famille. d'accord et puis. nekkuma ba léegi ci ne maanaam yéexuma dugg ci musique bi. Mm-hmm. tey euh, du ma am mën naa ne du ma am ak kenn problème. Mm-hmm. ci musique sénégalaise dépassé naa loolu. parce que tey macha allah kilifa laa ci musique sénégalaise. bu ñu tudd musique sénégalaise tey. ça fait vingt ans quand même. il faut que ñu tudd Pape Diouf. ndax loolu dama ko liggéey. Mm-hmm. te it nit mën na ci ne fang bëtam. kon samay rak ñoo war a nekk ci ay problème ma leen di coacher. beneen bi ci topp it macha allah sénégalais yi def nañ ma référence kon ku ma war a amal problème je pense que waxtaan ak yow. aywa imaam waaye nag problème moom dépassé na fu may. aywa imaam dëgg la imaam aussi li mu wax duma ko teggi parce que nit ku yàlla baaxal la donc euh, li ñuy ñaan rek ñun ay ndaw lañu yàlla nañu yàlla musal ci seytaane ba. waaw waaw euh, musu si seytaane ba pare lëkkaloog ba pare di musu seytaane moo tax la ko yàlla yàlla fegal ba sunu maanaam sunu jaamu yàlla sunu musique bu mu ñu yàqal sunu jaamu yàlla bon euh, Pape Diouf yow xam nga ko man mus naa wax ne mm. euh, clip bu boobu nga def maalaw maalaw waaw kooku warul daw mm-hmm. <laughs> seetaan naa la yaa ngi dégg mm. parce que mooy li ma la doon wax sànq mm. man dama choqué dégg sama doom bu am ñaari at di wax waxu baay baabu te wax yooyu mu am référence yu leer naa ñi si góor ak jigéen Pape Diouf loolu yow nu mu la mënee dal mais yow déglu nga ko bu baax. mais déglu naa ko. kon waaye nga ko fecc nga ko de. mais dama déggoon dama déggoon aussi benn jour. ngay wax ne bal dama déggoon benn jour ngay wax ne ci benn chaîne de télévision. Uh-huh. ngay wax ak Baba Mal. Uh-huh. wax bu am solo. Uh-huh. te loolu tamit man am solo ci man ci ñi nga xam mooy ay El Hadj Ndiaga ak ñooñu. ñu delloo leen cër bi nga xam am nañ ko ci wàll bi. waaye nga wax ak moom wax bu respectueuse daal di wax ne su ma sañoon baaba Baba Mal nga wan ñu yoon bi ci festival yu mag yi foofu fan nga ci toll. waaw mais wan nu yoon wi ak suñu liggéey parce que. waxuma France de. Hmm? comme ay Angleterre festival yu mag yooyu nga xamante ni Baba Maal moo ngi koy réussir foofu. waaw moo tax ma ne la ñoom wan nañu yoon wi. Hmm. waaye ñoom aussi on n'a pas resté les bras def nañu suñuy jéego suñuy pexe ba daaw ñu ànd ak New African Production. Hmm. suma mag Biran Sarr. ñu yóbbu ñu ci benn festival bu ñuy wax le festival de Wisconsin aux États-Unis j'ai joué devant 27000 personnes. Hmm. ci kattanu yàlla aussi dem nañu. Chicago dem ci benn salle bu ñuy wax Old Town. Youssou Ndour moo fa joué Baba Maal Salif Keita. jour boobu jot naa Baba Maal téléphone. Hmm. naan ko grand sañaan nangu na. maa ngi war a yegg sur scène. dans trente minutes. mu ne ma tàllalal sa ma ñaanal la ma ngi koy saluer de passage. marabu la de. donc man Pa euh, euh, dinaa rejoindre un peu Pape Sidi. Mm-hmm. ci aspect bi mu ñëw sànq. Mm-hmm. Euh, parce que quoi qu'on puisse dire. da ngay liggéey lu am solo ci wàllu musique xëj na ñun ñi nga xamante ne muy man muy Pape Sidi peut-être am nañ chance information bu ñu bëgg am ci yow am ko li ñuy xam mhm. bari na sénégalais yu ko dul xam wax nga ko sànq mhm. euh, joué nga fi ay spectacle devant vingt sept mille spectateurs mhm. remplir ay salles yu euh, bare bare bari mais lu ci ëpp dafay passé inaperçu euh, gis nañu dernièrement président François Hollande avant muy dem am na benn pot wala am na benn xew-xew bu mu doon organiser à Paris Ndour visite d'état yow yaay seul musicien bu nekk ci Afrique bu nga xamante ne invité nañ ko fa mu bind lettre bi yónnee la ko mu nekk également beneen sentiment de fierté bu euh, nit yi di am ci yow mm, mm. Euh, euh, mais on a l'impression que da ngay dund ci taalibe ba mm. danga nga foog ni loo def wanewu la uh-huh. comprendre ñu lu tax li ngay def muy am solo ñëpp war ci jot Euh, euh, fësaluñ ko comme il se doit. il est victime d'ostracisme. Euh, loolu euh, aussi dama koy bàyyi presse bi. parce que. ñoo war a def seen liggéey. en fait du ma ne ñoom ñoo war a def seen liggéey mais bon en grosso dama koy bàyyi la presse xam nga saabu du fóot boppam. li am solo ba am solo mooy musique laay def naa fexe ba mën a woy man. parce que woykat la ku ma dégg ne ah pap li ngay woy neex na. Mm-hmm. naa fexe ba su may génne album na neex. naa fexe ba samay fans la public sénégalais su may tëgg je fais le plein naa fexe ba at mi contrat yi ëpp ci réew mi ñi koy gañe na ma ciy bokk te loolu maa ngi koy am ndax je fais le plein alhamdulilah maa ngi sant yàlla amatuma jot mm. samay contrat macha allah. galaa yi may tëgg. loolu tamit sénégalais yi kaas nañ ko tëggatoo ci réew mi. Euh, sénégalais yi waaw c'est vrai parce que dama amul jot dama busy. Mhm. dañ ma soxla sant yàlla la loolu sant yàlla la beneen bi ci topp aussi waaw léegi waaw léegi euh, dama amatul jot mais dinaa ko reprendre. parce que déjà tu dans le social nga baal ma pour balaa ñu jeex. li nga yëngu ci social itamit bëri na mm. euh, ndax li nga dëkk ci banlieue bi en plus mm. buñ dee bu ngeen defee ay frasque dañ koy wax mm. ne lu toj-toj bi woykat bi def wala bi nit ku siw ki def bu ngeen defee lu baax lu tax du ngeen bëgg euh, par exemple ñu fësal ni que Pape Diouf il fait trop dans le social mi ngi ci ordonnance yi mi ngi ci kër yi mi ngi ci nàngam mi ngi ci sàngam te bëggoo itamit ñu wax ko te li ñu jub lu ci wax ko mooy ñi mel ni yow mën a topp ci tànk yooyu. waaw xam nga d'ailleurs man par rapport ak sama calendrier ni ma busé léeg-léeg lu ci bari sax man maa koy mën a relater. mais su ma xoolee at mi sortie yu may def ci télé yi wala ci rajo yi day néew parce que tellement ak sama programme du ma am jot sama album bi ma génnee bientôt mu am un an comme Coro li mu wax dëgg la on fait beaucoup de social waaye nag bokk na ci suñu éducation de base ak sama slogan damay faral di wax naan damay def liggéey lu bari wax lu néew. Euh, li am solo moom mooy léeg-léeg euh, liggéey euh, mu lalu bien sûr si xam-xam. ak ay jikko yu baax léegi Pape Diouf dañuy jeexal. Euh, tey émission bi ak yow. Bercy 2018. waaw Tounkara nga baal ma balaa ngay jeexal ak moom <coughs> ndax euh, ñu ñëwaat ci sa casquette euh, ambassadeur wu lutte contre la. bàyyi leen cigarette si nag léegi damaa eh. bëgg nga wax ma sa plan d'action <laughs> lan la. waaw lan mooy sa activité yi nga fas yéene déroulé ngir jëlee fi cigarette. waaw mais bon comme li tax ñu fal ma ko rek communiquer. aywa wax ak nit ñi ànd ceeg ministère de la santé. ànd ceeg équipe bi. woyal leen waaw woyal waaw na leen bàyyi leen cigarette. Euh, Pape Diouf tey booy booy booy tëj émission boo doon tëj émission bi lan nga koy tëjee. waaw euh, li ma koy tëjee mooy déjà maa ngi euh, profité ci occasion bi. di fekk si Thioro ci côté social bi mu wax ndax li ma def ci social yëpp su ma ko doon wax fi émission bi du jeex. te jarul wax nag. chaque weeru koor. social du doy. chaque weeru koor dañ doon def. Pape Diouf def lu baax di ko wax dafay daf koy yàq de. waaw mais bi je je préfère ko. Hmm. pour waaw pour vraiment. Euh, pour euh, euh, la faire plaisir. parce que man xam a seede euh, parce que man say parents xaw nañu jege. dëgg la Euh, dernier camp militaire bi maa ngi cité La Rochelle. Ah, euh, muy wax sànq. Eh, seen ko ah, seen koñ ngeen bàyyi fii fii. Eh, bàyyi ko eh, mu ci yow ci loo xam ne man gis naa ko teg naa ci seen. jërëjëf euh, dañuy dem samedi hôpital Philippe Senghor. Mhm. pour yóbbu foofu ay ndogu. man personnellement ma seeti malade yi fa nekk. Mhm. jaare ji leen ndax dañ koy def chaque année. donc samedi ñu ngi koy def hôpital bu Philippe Senghor donc maa ngi woo ñi ma bëgg a gis yëpp heure ndogu lay doon jox leen ndogu seeti leen am na benn daara bu taqaloog euh, hôpital bi ñoom aussi dinañ woo xale yi ñu ñëw jàngal leen alxuraan ñun aussi ñu jox leen ndogu saafonte ci weeru koor wi balonte ak euh, man xam nga lan laa bëgg nga jeexale waaw imaam nee na affaire bi pare gu ma de ah, ah <laughs> voilà donc bu ci topp le juillet maa ngi dem prateau benn festival bu mag boo xamante ni maa ngi koy def ak commune de Prato di ci ànd ak suma xarit Serigne Sam Fall ak association des sénégalais bi nekk Prato. donc Prato mooy Prato benn commune bu nekk Italie la. Ah. foofu aussi tubaab yee ko organisé ak association. Prato des sénégalais de Prato. donc bërki démb laa fa dem maire bi recevoir ma maireu Prato. moom aussi ma koy nuyu de passage. Euh, di nuyu suma rak. bu ngeen ñu ñëw ci Bantamba. dafa Fall Bara Couture. moom a ñawal lu rafet li <laughs> macha allah Tafa jërëjëf. waxoon nañu ko ah, prato boori proto. Euh, lii Pape Diouf xam nga Imaam wax na ko nee na léeg-léeg. Euh, bi ngeen def seytaane def sa a la ma soog léegi dama bëggoon tey. nga jeexale way woo xam ne. dina wóor ne lii lu sell la kenn amul seytaane amul si yoon. waaw euh, damay improviser. parce que comme que ñu ngi ci weeru koor. Mhm. te am na ñoo xam ne bu weeru koor jotee. dañuy naan dañu feebar dem seeti docteur. kañ nga génne album nag nga war a wax ñetti <laughs> maa ngi maquette maa ngi maquette donc loolu laay woy woyal ko imaam ci air bu dal bu sedd ok. yow mi war a woor lànk lijjanti jàngoro teeg buñ la suulee keroog nga um koor yow mi war a woor. lànk seeti docteur bi buñ la suulee keroog nga um ko nañu leen ko wooree nañu leen ko wooree waaw ko woor <laughs> maam yàllaa ko santaane woor neex na xëdd neex xëdd doo ci jaar te it ndogu waxi noppi waaw waaw waaw nañu leen ko woor imaam yàllaa ko santaane yow mi war a wóor lànk seeti docteur bi imam bés buñ la suulee keroog nga um ko. est-ce que en ah, en tout cas waxu waxu dëgg imaam sax <laughs> imaam ko. <laughs> Euh, c'est moom kenn mënul euh, ah. werante ni euh, waykat la. bu ñu ràññee ci réew mi te lu am solo mooy moom dafa xàll yoonam. maanaam ne dina yegg fu mu bëgg yegg amul ku ko gàllankoor amul ku ko padd amul ku ko galgal amul dara te euh, dëgg-dëgg loolu boobu ba